jot li waaw escalier ñoo xam kawe quoi escalier la turbulence looy rey loolu ngeen jóg. Euh, yow eh, seen verre yi na daj yéen laa waxal eh sëñ bi. jarul ngay gestu seen verre yi lëndëm yi na dañ yéen ñëpp na dañ comment. comme ça. et puis la dernière fois nga ñëw tribunal di boobule ah. on commence. affaire numéro 106 monsieur Bandikita Araba. mais tu es un peu désordonné ci ah. merci garde. écris-moi bandi guitare. sëñ bi yaay bandi guitare. oui may bandi guitare. bandi guitare xam nga la indi. ah am na lu ma si xam am am na si xamul ah. na loo xam am na loo ci xamul. lépp dina leer. waaw ah, yow la rek. tàmbali euh, garde indil ma mademoiselle Paulina mademoiselle Paulina di Aïssa Son <laughs> Aïssa Son la tuddee Son. Son xale yi ñoo bandi bu leen géntee ba tuddee leen tur de faaw nu moo tëddee ca leneen. Son Aïssa di Aïssa <laughs> xale yii. Eh, ay eh, sa soxla eh. la ah. ki ngay xool bàyyi ko xool nga ko ba mu lijjanti la ci ruq loo cay continuer di xool doo xool sa kanam dëgër bët. <laughs> naa di Aïssa Son. Aïssa <laughs> na yii xale yi daal jaaxal na ma rek. pëli naa Aïssa Son xam nga kooku. bu baax a baax. xam naa ko bu baax. fu ngeen xamante. bànn guitare mi. waaw. jëf ju ñaaw la ma def. eh eh jooyu nag moom mënuma ko seq ak yow bi ngay jël xaw ma loo jëloon ba fekk ko jooyoon da doon ree. dama bëgg nga wax ci fulla continue yow laa déglu. kii. waaw sama fans la. waaw. dama ko bëggoon torop. bëgg fans waaw. may dem ay concert waaw bànn gitaan ñi déggante téléphone waaw mu daar may invité seen kër waaw ba ma invité mm-hmm. nekkati hôtel la ma invité woon mu ne la ñu seen kër silence dalaa invité seen kër ndekete hôtel ngeen di dem ma ne ko fii waaw du kër de hôtel nga ma fi indi waaw mu ne ma non ci yëf la bugguma kenn ku ñu yàqal affaire yooyu. ci la may proposé leen. leen lan. nekk foofu di ma fóon di ma raay. bi mu lay fóon da ngaa nangoon da ngaa bañ. damaa bañ. ah. après da bañ di daw. da bañ di daw. mu daal di xëcc sama yére. waaw. taf sama gémmiñ. waaw. daal may pompi. jërëjëf. Eh, eh, déglu leen yéen seen yoon nekkut jërëjëf. merci baal jooy. c'est triste waaye yaa fekki. moo fekki. moo yaa bokkoon ba muy neex saftaani. da ngeen war a seen kër. ku leen woo ngeen dem ku leen woo ngeen dem Facebook beeg foo ngeen di dugg. wasa wasa benn bee gën a bon xale yi nu leen doon wax loo ñoom la bandi xam nga kooku. bien sûr xam naa ko bu baax. ah. xam naa ko bien sûr. yow nag yow dégg naa sa rasta moom moo ko da nga ko loué. di loué ay rasta bàyyi leen loué loué mooy loué karaw karaw nees koy loué ah. xam nga kooku. xam naa ko bu baax da xamante. oui en fait. eh eh sequ ñu ay en fait de man ak yow. dama bëgg nga correct fii c'est la la soo correctul sa mère renvoyé affaire yi man jóobu la mandat dépôt qu'est-ce que c'est ça hein. comment Paulina sama fans la. waaw. yàgg na ma woo. waaw première fois ma woo ma dafa waxoon sama fans la. waaw woo ma deuxième fois troisième fois mu ma vraiment yow da nga ma neex man yow lay wër. moom moo la da ko neex. bien sûr moo ma ko wax. waaw mu ne ma damaa bëgg ñu gisante. yéen ñaar ma ne ko man aw ma jot parce que lu may joué dafa bëri. oui oui mu ne ma wax ma kañ ngay am jot. waaw ma ko dimanche naa am jot. mun invité ma. waaw man këram la may invité. waaw mais malheureusement yóbbu ma këram. dëgg la may yóbbu. am lu ma proposé. bandi guitare. Eh, xam nga lu ma la bëggee mel ni oto oto bu jël autoroute à benn benn loolu wax ji bëgg la wax buñ ko barax baraxee barax du dafa gaaw. waxal waaw mu yóbbu la. ma këram la may yóbbu. ndaxte hôtel la may yóbbu. moom moo la yóbbu hôtel. moom yóbbu hôtel. waaw. waaw mu yóbbu ma hôtel. waaw mu proposé ma. moom mu am lu ma proposé. waaw ma bañ mu génnee portable am na su su ma ko deful. waaw daf may filmer. Uh-huh. partagé ko sur réseaux sur sociaux yi. dëgg la. soo bañee mu rëbb la ci réseaux sociaux yi après. bien sûr. ma ne ko non ah ma ne non non waaw mu insister waaw après tey mu ñëw fii bëgg yàq sama der bëgg yàq sama carrière tax na mu indi ma tribunal jërëjëf doy na eh, eh. jërëjëf yàq der jërëjëf doy na jërëjëf xale bu ndaw bi nga naan femme d'affaires la fu mu nekk femme d'affaires dégg naa ci këyit yi nga ni kii femme d'affaires la kii ban affaire lay def kii fan la mën a tukki hmm? ah, kii dégg nga sëtu bopp marle bi la <laughs> ba jigi <laughs> la nu ah, mu tuddati sax moom mi diir madame maître Ndoye tu as la parole merci monsieur président maa ngi lay nuyu ngi lay fay di nuyu sama naataangoo yi nga toogal ñëpp ngi lay fay monsieur le maa ngi lay nuyu maître Diop nuyu naa la di nuyu salle bi yëpp monsieur président mhm. dafa am wax yoo xam ne logique maanaam kii bu fekkee dañu kii da pompe naka la ñuy bokkee ñoom ñaar néeg bi mu mhm. pompe ko pompe bi jëkk dal ko te dalul kii munul nekk bu fekkoon su fekkee da pompe mhm. ñoom ñaar ñëpp danoo war a màndi beneen bi mooy man mademoiselle Paulina mii moo topp sama client bii guddeeg bëccëg di ko woo naankaan dama laa bëgg dang ma neex ñëwal seesi ma boo ma seesiwul ma seesi la kii yéen dalatul fanaanatul bis bu ne mi ngi koy woo mhm. mu proposé que ni ko ñëw a seesi ma sama client bi dafa bañ ni ko du la seeti ndax ji góor du dem di fekk objection désactivée ci këram mu fexe ba mu ñëw këram tëdd ak moom pour lan pour yàq carrière am parce que xam na ni kii dafa siiw kii ñëpp ko bëgg mu ne léegi naa ko bloqué wala naa yàq carrière tax ma tëdd ak moom waaye dara lim koy wax dara amu ci violé ko lim ko def moo ko neex man man Mabel Polina mii boo xamante ni kii yàgg naa toj réew mi observation monsieur président observation ak yow wi ma yàlla ba xam yàlla doon defare ba yàqi mag ak yàqi mag dégg nga ci à le président ngi lay nuyu mhm, ñu ngi lay fay ñu nga toogal ñu mais mhm. respect monsieur le président. oui. wax bu dofee nopp ya koy déglu war na nañoo wér. Mhm. wax bu dofee nopp yi parce koy déglu war a wér. a wér waaw guitariste boo xamante ne nii tur ba dafa wuyu borom la. Uh-huh. parce que bande guitare la def. Mhm. mais bande guitare kii nii taxaw dafa am foo toll ci moom. dëgg la bëgg la. ngir hasard. dëgg la daf la bëgg te yàlla tax parce que li ngay def moo ko nekk. Mhm. mu am ngor torop di yëkkat téléphone di la woo. di la nemmeeku di xool ci loo nekk. ndax rien rek li ngay def moo ko tab boo ko jàppee woon ni sa jigéen doo ko def ni nga ko def. Mhm. dama bëgg eh, place. eh que la première fois et la dernière ñuy wax ngay jalax ay loxo ma wax comment. Banda. calme Banda nix. te dooñu ko baax sax man gëj naa koo dégg ca El Hadj Ndiaye. Hmm? Banda <laughs> Banda. Banda Bandi yi <laughs> ak ay continue yow ba nga jalaxaat fi loxo. comment monsieur président dimanche bi affaire yi demee. oui lundi suba. man de ma part personnelle maa dem ba ci buntu hôtel bi. Ah. ma laajte gardien bi. Mhm. kii. Mhm. moo fa jiitu Paulina seize heures et demi. moom mii moom mii taxaw. waaw président. Paulina woo ko ne ko foo nekk mu ne ko maa ngi sama biir kër. Mhm. ndekete boobu mu ngi ci buntu hôtel bi taxaw di ko xaar kuli naa dem ba këram laajte ñu ne ko génn na mu woowaat ko mu ne ko dañ ma woowoon benn tournée mm-hmm. léegi dafa am fu ma nekk ba fa fekkee man ak yow ñu waxtaan mu laajaat ko ne ko fan la mm-hmm. mu expliqué ko ba mu mm-hmm. fekk ko ci hôtel bi dëgg la mu fekk ko mu taxaw mu ne ko waxoo ma woon ni fii nga may woo moom yaakaar naa expliqué na loolu kon soxlawul ma ci jaaraat monsieur le président ma dem ba ci chambre bi ñu nekkoon chambre bi 16 lañ bind ci kaw. chambre 16. chambre mhm. man maa duggal sama bopp. exactement chambre euh, joxal ma ko dossier bi te monsieur le président li ma ci gën a mooy. téléphone bi. oui téléphone bandi guitare la. pardon jox ma. dama koo fekk ci suufu lal bi. merci. xale bu jigéen bi daf doon daw. moom mu topp ko ba ci buntu bi di ko xëcc. oui ci la yére bi. Mhm. xotteeku yaakaar naa ku nangu. sa yére bi xotteekoo ci kanam. jox ma yére bi ci ginnaaw lay yére bi. jox ko <coughs> kon damaa yaakaar ni wax ji ferankulaay na ba pare med yàdd amatul dara luñ ciy wax yére baa ngi noonu xanaa cross top la hmm? moom xam nga li ci nit ñi wax merci merci monsieur le président merci jërëjëf li nga wax defe naa ni c'est très clair tu as des renseignements mais euh, cross top la cross top silence boo body body peut-être seen yi la. ci horoscope la horoscope. luy horoscope. c'est le grand frère de Jumbax Aw. ko Jumbax Aw. Jumbax Aw fekk na mu fi. ah horoscope fii la ñuy xàppati. da leen wut yëre ah, eh, merci defe naa ne renseignement yi fi ni c'est très clair et net et précis. Mhm. monsieur procureur. bis nga li fi xew. horoscope donc tu as la parole. merci beaucoup monsieur le président. madame Diop je vous remercie. Merci. parce que vraiment vous avez fait un boulot extraordinaire. en allant cherchant de preuves. C'est ça que, ça que nous attendons, nous attendons, de vous. Il faut que vous faites votre boulot. Mm -hmm. Votre boulot n'est pas de rester dans un bureau, mais c'est d'aller vous investiguer, d'aller chercher des preuves. C'est ça que nous voulons pour vous. Merci beaucoup, je vous en remercie. Merci. Et pour revenir un peu fait, mhm. Monsieur le Président, Monsieur Banda, je suis vraiment désolé. Vraiment, vraiment désolé, mais vous venez de, l'image des artistes. Vraiment. Que vous êtes artiste comédien, que vous êtes artiste musicien, tëkkatu sabar tey képp kuy artiste monsieur Banda yàq nga deram vraiment yow li ngay def. Mhm. xëy na dafa neex ba am ku la ci gis bëgg la ci. cette petite fii présente ne vous aime pas parce que sa physique la mais elle ndax li ngay def daf ko sentir fant la ñëw ci yow bëgg la te yàlla tax amuloo la def lu di ko tëddee ana artiste bi daan yeete xam ana artiste bi daan génn ku réer. bàyyi na ana artiste bi daan faj ku feebar ana artiste bi daan éveillé. Monsieur Ban je suis vraiment désolé mais vous avez tenu l'image des des artistes sénégalais lii bu dawee ci net bi ñun fan lañ jëm. xam que diir dire les étrangers lan la ñu wax suñu artistes sénégalais yi nañ leen xoolaat suñuy jëf surtout boo nekkee nit kuy feeñ télé ñëpp xàmmee la ràññee la xoolal say jëf sa doxin sa waxin même say say say feesa nga ko war a xool am na ci njëriñ benn fee may wax mooy mademoiselle Paulina monsieur le président xale yi tamit bu ñu yemee fi ñu war a yem mm-hmm. yëpp du leen dal mais kii bëgg ko xam nga droit woo ko xëy na. Mhm. mais woo ko di ko woowaat di ko woowaat dina dem ba lim naroon lim dana def nii sax bu nekkoon ci xam dina ci nekk. di ko woowaat nit ki boo ko bëggee bëgg ko rek te yàlla tax ci lim ne mais ban di ko topp bàyyi leen bu ngeen fanee nit topp ko mu jaral leen lu nekk. bëgg kenn mënu ko tere nit parce que nit ki li ngay def nit mën na la cee bëgg. Mhm. Mhm. mais am leen fu ngeen di yem yem leen seen kër yem seen i wetu waajur te ba di fekk yéen artiste parce que ñëpp yemuñu te nag góor rek la mën a doon. sooy seet sama artiste am bu yàggee xelam na ci moom. Mhm. xoolaat leen seen i jëf. monsieur le président. Mhm. li may xaar na ci monsieur Bane bi du leen lu dul nga jël ci moom exemple. Mhm. tëj ko dix ans de prison ferme. merci beaucoup. jërëjëf monsieur le procureur. silence. monsieur le président qu'est-ce que vous faites. Ali Ousmane dama sàcc kër yi di waay. <laughs> monsieur le président dinaa la woo. monsieur Ali Ousmane laa soxla woon. me c'est le portable de Maître dama doon ñam ci crédit bi. aw ma crédit du ma woote dal la ah yow nag kanta poli naa yow balaa may jëm ci waa ji ci yow laa jëm gis nga yéen lu jig njaaga lool olof yi wax yéen ay njaag c'est leer na ma bi ngay woo nu mu sax nambal guitare bandi guitare mi sa ndey ak sa baay yëgunu ko lan di woote boo faawee ni doo ko seetaan ca télé ba looy woote di loolu cëf loolu lay invité nga def bi ngay dem tàggu woon nga sa baay tàggu nga sa tàgguwoo kenn nga ñalang ñalangi ñalang ñalangi ñalangi ñalangi ba ca auberge ba mu def la li mu lay def ah nga ñëw fii di lu xulli ay bët ah, góor dafay mun góor ba ba am aasi góor jël góor ah waaye mënatu leen mun kenn mënatu leen mun góor ah, qu'est-ce que c'est que ça dama la fan doo yem ci télé loo wuti ca fa mu la woowe xanaa fanwante wule ngay xapp xappali bët taxul yow nag kanta yow yow moom man man xam nga kii lu ma <laughs> jaaxal ci waa ji ngeen indi yow ban soo ban ko ban ban programme ban ban orchestre nga bokk. bandi guitare may bandi guitare. yaay bandi guitare foo toj laa bax ak koo ma sa àndal mi def concert ak soo. yow mu gisul soo bëggee ma tojale fii léegi. nga ne ma la. waaw toj tojal tojal yow yaa tojal. tojal tojal. sama guitare ah, dan fi dan la indaale guitare. tojal tojal ma loo mën. boo demee da daan ndàmbal guitare. may ko rek may ko rek may ko rek may ko. bu yàq kaam jàmbur. monsieur liggéey wala dañuy fo. ah ah day na day ay lan la. comme da n'oublie jamais où nous sommes nous sommes dans un tribunal. wax dëgg si yàlla. nous ne faisons pas la fête nous ah, dem. ma mel ne ku nekk dëkk ñëw. borom ñaa dam rek sa yéeli juróom. bu ma ko xas naa ko bàyyi mu gedd. non on va continuer notre travail parce que tribunal la il faut nous tester balaa ñu lay def li lay def di yàqal liggéey jàmbur. du mën nga aay nga yaa ngi ci on y va. je cherche ton cœur. qui l'emporte ailleurs. bul génn sama gaam. bul génn sama gaam di nga génn terminal de. je l'emporte ailleurs. je je là-bas là-bas. déjà li ma wéy nii rek yaa ngi xamul dara. sama xel sax nii dara nga bëgg ñu fee yàggal ci yow wax nga ba pare bu ci dugg. yow laa déglu gaaw dama yàkkam. yaa aduna amul solo. waaw waaw ak amul solo. waaw waaw waaw. yaa aduna. def lu wax lu baax soo deeyee fir daw si ngay jàpp njaay waaw jërëjëf dunya eh. Eh. adunya adunya doy na adunya adunya doy na xam nga lu ma neexul ci way da nga wax ku def lu baax am lu baax ku def lu bon nag da nga koo fàtte ah? hmm? ku def lu bon eh. Eh. am lu bon. Eh. wala nga génn. jërëjëf li nga way neex na yaa ci gaam bi. kontaan nga. kontaan naa torop. di nga bàyyi ma dem. loola tax sama plaisir xol. ak sama sentiment ni ma wayee nga nekk ci gaam. Hmm. looloo wala pen bi ma lay tëral sax dama lay dama lay dama lay yërëm rek ndax sama xol ma ko. vraiment tia tima tima éveillé du noonu la. Hmm. une peine de gamme. une peine euh, euh, yow da nga violé da nga violé la loi. eh eh xoolal doy na. léegi li ma lay ñamal ci yërmande sama xolomay wax fi nii. Hmm. viol moom xam nañ liñ ci tëral. loolu moom kenn du ko wax kenn. 31 décembre am bu ma ni ma 31 décembre doo ko fekkee dama lay ñamal fukki at ak juróom yoo xamante 31 ci kaso bi lay fekk. rompé les rats sorte génnal yow na Paulina dinaa la ñamal deux mois ndax fekki góor nga bàyyi. allez la séance est levée sortez. ko forbe forbe forbe nga jëm forbe salam la tànk la allez